lu baax lu mu baax baax nga am ci ndigal mooy li ci solo kon ab sart la ci li ngay def amal na mooy ndigal la kon lañ ci daa def ñoom nañ bàyyi xel ci li ci sensibiliser nit ñi ci waxtu wi ngir ñu xam fi jàngoro ji toll ak fi àdduna si toll ngir ñëpp maanaam moytu na ñu ñëpp war a wattandiku ba nga xam ne ñëpp danañ màggal sa jàmm delluwaat sa jàmm sa dara du leen fa toppee loolu bokk na ci lay jiitu ci li ma waroon li ma waroon wax ba ca dolli ko itam biir pénc mi xam ngeen ne écran yaay dafa daa bëri loolu itam lu ñu ko gën a mën a wàññi rek ndax gis nañ ne mbooloo mi dañ ci daa daje di seetaan ba loolu itam dana muy jur gàllankoor kon loolu lépp itam ñu seet ni ñu ko gën a man a tase rek ci biir quartier yi mooy lëgëni di ca dolliwaat itam biir siyaar yi ci biir jumaay Tuubaa loolu itam dañ xam ne adabu ziyaar dafa am ku jëm si ci kenam Sëriñ Tuubaa mu wóor la ne da ñëw ngir teewlu si ngir lu rëy yëkkati la fi nga jëm itam gënal la fépp danga ko fa tëdd moo la gënal lépp mu wóor la ne mi ngi genaw yow kon foofa ku fay tàbbi war nga ànd ak teewlu bu rëy war nga ànd ak yëg gu mag gu mat ci sa digg sëriñ bi waaye war naa ànd war naa ànd ak ay teggin siyaare rawatina ñun yoonu murit ni ñëpp xame ci ay teggin kon dugg ci biir jumaa ji di ku boole ak ay yuuxu loolu bokk ci adabu siyaare kon lool itam waaw mu xadamu xidma ñi nga xam ne ñoom la nekk seen loxo nañ ci gën a bàyyi xel ci di soññ nit ñi waaye taalibe yi ñëw itam nañ bàyyi xel ci ne jumaa ji di barab bu ñu yuuxoo lu barab bu ñu foyee barab la moo xam ne mooy fi gën a màgg ci ñun mooy fi gën a tedd ci ñun ka fa nekkee gënuñu lépp kon loolu itam war nañ koy bàyyi xet bu baax li ko jeexale nag ci yi nga xam ne soppi nañ ko leen ci màggat gi mooy ku ne xam na ne bari na ay gan yu daan jóge bitim réew ñi ñu leen di ñu leen ci invité ñu ñëw di ànd ak ñun màggat yi ñooñu ñëpp nag ren ngir xam fi waxtu toll moo tax ren jéggal nañ leen ba déwén ak jàmm incha allah euh, waa ambassadeurs yi nga xam ne ambassade ambassadeurs yi ne Sénégal te teewal fi seeni réew ñooñu ñëpp itam dañ daa ñëw ci bis bi di ko ànd ak ñoom ñooñu ñëpp xam fi waxtu yu toll ndax ñun bu fekkee ko it ñoom xam nañ nañ koy dawee kon loolu itam ñëpp dañ leen koy jégal ba déwén ak jàmm wooyu falal leen ko rek mu bañ di gis ñun ñun ñi nga xam ne nag. li ñu dund suñ duggee sëy bi jaaral nañu lu ko ëpp ñun moom loolu moom moom moom fañ ci nekk rek mooy fa ci ñëpp nekk kon loolu daal mooy li liñ ci doon fàttale wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu